mu jël ko defar ko ba mu jekk ba baax ba der bi nooy nga mën cee sëgg julli ne alhamdulillahi rabbil alamina mu ne maa ngi mébét ni uude di def der ba nit ki mën cee julli maa ngi ñaan yàlla sama doom ji su màggee bu kee nekkee dabbaaxul juluud moom mu nekk dabbaaxul xuluub nee yàlla dafa bind ay nit yoo xam ne daf leen bind pour ñu mën ay combat ci àdduna nga xam ne duñu noppalu dañuy jël seen bopp may ko yàlla xam na itam daana wax réew mi mooy sangu ñëpp xam nga ki taxaw wax ne bu réew mi naroon a takk man Abdoul Aziz pare naa ma yore benn guuxu ndox ñu ne ma def ko ci te réew mi mucc yow nga muy ji sa boroom loo fa fekk baax na kooko xam nga ne jàpp na ne moom doomu réew mi la